ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu xaq ñëpp di ñaan suñu borom yàlla nu yàlla boole jéggal di nuy waa àddina bi yëpp di nuyu waa Tiwaawan jël nuyoo bi teg ko ci loxo xalifa bi di Serigne Babacar Mouhamadou Mansour di nuy Serigne Pam Malick si bi nga xam ne mooy porte parole kër Seydil Hadji Malick ah mel ni kàddu gi nuy yëkkati dafa am benn association di association pour l' éducation et l' orientation des jeunes des jeunes de Tiwaawan euh, yàlla def tabaarakallahu ñu organiser. benn bis ci laylatul kadr bi eh, ndax tabaarakallahu ku ci nekk xam na situation bi réew mi toll wala bi àddina bi toll fii ci suñu quartier di quartier Zamzam ñu bëgg incha allahu ci bisu laylatul qadr bi ñu togg ay ñam yóbbu ko ci daara yi nga xam ni ñoo nekk ci quartier bi eh, ñam yoo xam ni ndogu lay nekk ak xëdd ñu yóbbu ko ci daara yi Euh, ñu ni woon nag dinañ def annonce bi pour képp koo xam ni dégg nga suñu kàddu te nekk ci dëkk bi di autorité wala ngay koo xam ni a ah, bëgg nga jàppale daara yi ñu ngi lay woo ci annonce boobu incha allahu képp koo xam ni it bëgg nga ci participer mën nga woote ci 77 885 80 80 77 885 80 80 wala 78 630 06 65 630 78 630 06 65 boo ci wootee incha allahu loo ci bëgg ñu leeral la ko dina la ko leeral kon ñu koy bàyyi xuloo xel population bi yépp yàlla na ci yàlla boog jàmm ñu ngi koy defee nag ci turu suñu tabaarakallahu euh, chef de quartier di suñu baay Abdoulaye Dramé ak imam yi ci quartier bi yépp wasalaamualeykum aleykum rahmatullahi wa barakaatu.